Eh, tabarakallah mbokk yi ginnaaw bi ñu àndee ak waa service commercial waaye ginnaaw bi ñu àndee ak euh, soxna Faat Bintu ci njàngale mu rafet bi mu jàngale nga xam ne lépp luy tax nit mën a jege nit mën a jege boroomam wax naa ne na ko ak léegi ndax tudd na néew ji doole yi tudd na ñi nekk ci mbënd mi tudd na ñi amul ndogu tudd na yërmande bi ñu war a bokk tudd na njëggal tudd na jàppalante tudd na partage kon li des rek mooy nu xaar sunu bokk auditeurs yi ak téléspectateurs yi ci 88 628 09 09 wala ñi nekk ci bitim réew ñu war a ànd ak ñoom ci double 0 221 33 869 83 92 moom la ñuy àndeeg yéen incha allah eh, su ko defee eh, Adja Fat Bintu mhm. am na ku nekk ci ligne bi ñuy jël ko doog ñëw ci guide pèlerinage bi incha allah mhm. eh, salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa sama nijaay maa ngi ziar de ñu delloo ziar kooku man la sa soppee doomu soxna Fat Bintu Diop aw ba eh ndeysaan <laughs> awa ba Italie <laughs> sama jarbaat noo def ñoo fi alhamdulilah waaw <laughs> ñoo ngi sant ñoo yàlla di julli ci yenente bi sallallahu alayhi leen sant bu baax a baax mënuñu leen a fay parce que ñu wax ak yéen rek kon la ñuy waxee yàlla xam na ko ngir rek suñu cofeel ci yéen ak suñu cofeel ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla xam na ko li ngeen di waxtaan dafa dugg suñu xol ñun boo leen di waxtaan waxtaanu koor lépp luñ doon jàpp dañ koy bàyyi. sant soxna Awa rek la ñuy déglu. Awa. ngeen def ci koor gi foofu. ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax di woor di jaamu yàlla yàlla yàlla santaane yëpp ñoo ngi koy def. alhamdulilah. xam na ko waaw soxna Awa naka kaala gi. saa <laughs> saa naka kaala gi. ah naka kaala gi ci yàlla xam ne maa ngi maa ngi ci ba tey. alhamdulilah rabbil aalamiina. maa ngi ci ba tey maa ngi ci ba maa ngi ñaan yàlla mu continue ba ilaa yawmi diini. ana ñoom soxna Kaltoum ñoom soxna Kolle. ñoom ñëpp ñoo ngi ñoom ñëpp ñoo lay sant di la gërëm. di la delloo njukkal. jërëjëf jërëjëf Ba. ñoom ñëpp kontaan nañu maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di. di sant Kaaw di ko gërëm. ndeysaan jërëjëf. jërëjëf. mënumaa wax sama xol dafa fees. sant yàlla bu baax parce que naa leen man su may wax yàlla xam na ni du ma ànd sago parce que ngeen di waxtaan dafa képp kuy jullit da nga ciy gis sa bopp. dëgg la dëgg la baax. yàlla xam na ko maa ngi sant yàlla di sant waa weekend gaa ñoom ñëpp. dëgg la euh, soxna Fatou Bintou euh, Rassoul xanaa ci seen euh, bi fête de Fane Binta Ndeye. wallaahi wallahi kamɓe fof aɓe mbaɗma ziyar aɓe jetta allah aɓe jetta allah kadi mo ɗaɗono wallahi seydi ba wallahi allah jogui jettuyo yooɓe min amin belti min mbawa haalde mbaɗen wo ligne he goppa ɗe tan ha saaha goɗɗo mbaɗa waɗa ziyar nenam mbaɗa ñaago allah yo allah hokkuma jurde balɗe e moƴƴude battane amin amiin kontaan naa sama nijaay jooju toog nag moom. <laughs> waaw sa sa wax maa ngi ko koy wax de maa ngi ko koy wax. si yow. wallaahi ñëpp la la bëgg ni ñu bëggee soxna Fatou Bintou noonu la ñu la bëggee. yàlla wallaay wallaay baax. naa bu baax a baax. yàlla na ñu nekk ci ku nekk dañu ci woote ku woote wu rek xamal ni bëgg naa woote ligne bee xat waaye ku nekk yaa ngi ci yaa ngi ci yoon wi. jërëjëf baax jërëjëf jërëjëf macha allah macha allah eyyi on jarama alhamdulillah on jarama on jarama min <laughs> euh, ba boobu euh, kii gis nga ñoom ñooma invité woon ren yóbbuma mm-hmm. itali ma defal leen conférence en pulaar alhamdulilah <laughs> ak borom këram Ibrahima Ba ñu créé fa nag benn euh, association bu mag bu Fatimatu Bintu Rasul mm-hmm. ni mu amee Vicentia noonu la amee Novera am Mila Euh, ñun nga bëri fa nag ay fan. xam naa déwén moom bu may dem maa ngi way ànd incha allah te ak soxna Degen. macha allah nee nañu soxna Degen ak Ndiaye loo yëpp ma man leen xanaa ñu ne ma nag am na euh, am na koo xam ne moom euh, mu ngi dëkk Poissy. Hmm. moom dafa defal Youssou Ndour kaset moom am na koy am na koy yëg lu ñu xool kooku kan la <laughs> am na ku nekk si ligne bi salaamaaleykum jërëjëf. salaamaaleykum. aleykum salaam salaam ziyaara bu baax a baax si weeru tedd yi ñu lay delloo ziyaar kooku xayra day sin ata bi bishri wal madadi nan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi li nga xam ne ku tedd ka ku sell ka ku baax ka moo ko teroo woon wu tedd wi ñu dugg hmm. maa ngi ci ziyaara jullit ci suñu borom yëpp ndax weeru jullit yëpp la jërëjëf ñaan benn affaire lillahi wa rasuli yi ñu gën a dimbalante hmm. ndax ci dana dogu bu suuf tëdd ak njabootam yëpp billaahi wallaahi wa taalaahi kilitam jege ko lool xiif bu bëgg a dee amul lu mu dogoo amul sax tàndarama bu mu dugal ci gémmiñam nañuy gën a gestu ñi nga xam ne ay dëkkandoo lañ nekk ci ko ndax nit mën nga am jaamu yàlla de waaye mën nga sonn lool yàlla nangul la mën nga tamit def tuuti borom nangul la sa lépp mm. bu àdduna ak alaaxira ndax dimbalante dafa am solo te am na ñoo wallaahi la asim amuñu dépense suba amuñu luñ dogoo suba amuñu luñ dogoo tey dëgg la koo xam ne sa loxo dim yàlla def na mu jot sa ginnaaw lool ngay dimbali di geesu ñi nga dëkkal ci mhm. tey àdduna bi tax na ñu bëri fàtte ñu dëkkal ci lu ñu mën a lekk ak lu ñu mën a naan. Mhm. ay góor rek lañ dañoo mënta wax. Mhm. dañuy gore ba dee gore ba faatu waaye dañ dañ dimbalante bu baax a baax. comme weeru promotion la di weeru koor gën cee dimbalante bu baax ndax li ma lay wax dama ko gis néeg yoo xam ne buy taw day senn ay sondeel la ñuy am duñ duñ taal courant mukk jàpp ñu ne li des ci seenu dund ci àdduna war nañ cee mën a am courant téléphone waxi nag leneen ak leneen yow nga yor. rafet étage bu rafet ay 4-4 di may ay xaalis ci ay stade bu ñu lay tuddee lamb ngay maye lu dul siyaar di leen suñu borom yi nekk ko ci tumuranke dafa ñaaw rafetul delloo suñu xel bu baax kenn du faatu bañ la yóbbaale ak li nga ànd kenn kenn du faatu bañ la yóbbaale ak alal wala lu mën di doon fii lañ koy bàyyi te sunu borom mi ngi gis ñëpp waaye man damay ñaan li leexi wa rasulihi nañu gën a gën a dimbalante nañu gën a dimbalante maa ngi ñaanal ñëpp nag jàmm ak salaam ci barki xaadimu rasul di ñaanal Serigne Cheikh Sidi suñu borom yokk aw fanam lool ak bépp kilifa diine tax li mu def ci lislaam bi ñëpp gis nañ ko yaakaar naa ñaari kor yi wala ñaari nàngam gëj na fee am lool kon loolu jullit yëpp ñu ngi ko ciy ndokkeel te koo def ñu wax jërë ngeen jëf. jërëjëf macha allah ajaa defe naa kii dégg nañu bu baax li nga xam ne loolu la wax. Hmm? te dafa mel nii dafa jël bayaat ci sa kaw mbayeef. wallaay ndeysaan ndax euh, li mu wax lu am solo la. Euh, wane na nii am na ñoo xam ne ni ñuy dundee euh, dund bu métti ñuy dund. ndax amuñu néeg amuñu làmp amuñu courant amuñu dund amuñu ndékki te euh, benn ñi ngi ci biir Dakar fii wala ñi ngi ci bitim réew mm-hmm. nga fenaanoo ak sa koll bu fees Mhm. te boo leen rombee duñu la ko wax wallaay wa jaaru jawaan dang la eh, te nga romb leen nga romb leen doo duñu la ko wax duñu tàllal seen loxo xam nga mooy ñi alquran doon tudd waaw lil fuqaraa alladina uxsiru fi sabilillah mhm. laa yastatiicuuna darban fi l ard mhm. yaxsabuhum aljahilu agniyaa min altaafuf taarifuhum bi siimaahum ndax laa yasaluuna annaas ilxaafan dañuy gore ba duñu tàllal seen loxo fekk ne yoruñu dara ñu ngi bóof ci seen nduq ak seen ngor ñooñu dañ leen war a devenir mm. jox leen seen soxla yaakaar na am na ku nekk ci ligne bi ñu seet ko asalaamaaleykum waaleykum salaam ok mbokk mbaa doon tamber ñu ngi sant bu baax kooku bisimilah bisimilah juróoma ndene sey sax aha on euh, ngol yehi kooku macha allah sama mbokk ñoom tamit ndeysaan ñu ngi doon heureusement bi ma ñëwee xam nga TFM moom dañoo dañoo dégg daaj. macha allah. ah dañ ma doon wax ne ma mais pourquoi pas amu leen émission en pulaar. fi ñu koy waxee rek ma ñëw fekk ma dégg Chérif si di def keroog jeudi passé. ma ne gis nga de TFM daal mooy mooy mooy télé askan bi kon gis nga ñoom itamit dañuy wax ne ñoom nee nañu léeg-léeg ñu bëgg a participer. mais ubbil nañ leen nañu ñëw dañu ñëw macha allah xam naa ne maag oustaz Mor moom suñu pulaar yi moom dañ koy lijjanti nee naa leen lijjanti naa ba def conférence en pulaar li ci des mooy ku bëgg a woote itam waaw kuy yëglu bismillah na ñëw bismillah asalaamaaleykum aleykum salaam waaw sëñ ñu ngi leen jar baax a baax ñu delloo kooku leen ndokkal ci weeru koor bi ñu leen koy delloo waaw turu nag moom duñu ko bëgg a leb bismillah bismillah waaw dañoo am luñ bëggoon laajte maanaam ñun dañoo nekk fii ci réewu tubaab yi mm-hmm. maanaam maanaam koor gu mu ñu ko ñàkk dem nag dañuy woor nag di di ci géej gi maanaam. da ngeen ci géej gi. waaw ci géej daal la ñuy xëy di liggéey léegi daal loolu daal lañ laaj maanaam luñ ci luñ ci xew ci géej gi. géej gi mun maanaam dañuy ñun jaay ñu ko yóbbu. waaw mais nag tubaab ñoom bu fa nekkee moom dañuy ñoom daal dañuy nekk ñoom di di. dañuy xaweeku. waaw. ok. <laughs> dinañ ci tontu léegi incha euh, allah. incha dafa naa mbokk bi. waaw euh, laaj bi ñëwoon na daaw. waaw ñëwoon na daaw. ren nag yàlla dogal na man xaw naa doxantu tuuti si géej gi. Mhm. muy boru itali yooyu susu. Mhm. ndax suñu doom yi fa nekk ak suñu càmmeñ yi. bu heure bi jotee été bi jotee géej gi la ñuy wax mooy seen lakk yeeg fépp fu am ndox nga xam ne tubaab yi dañ fay dem mhm. dañuy dem di fa yi liggéey la boo xam ne góor ak jigéen a koy def muy liggéey bu metti boo xam ne dañuy kii wax na dëgg tubaab yi dañuy xaweeku mais loolu wax naa leen ne leen du la teree woor kooku moom du lay pour nga bañ a woor mu euh, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim parce que itam mun nga ah, koor noteel tontu bi balaa mbokk bi yàgg ci balaa mbokk bi yàgg si salaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam ok mbokk salaam man tonton maa ngi tudd maa ngi dëkk Parcelles ok waa xale laa nag wante li ngeen def neex na ma trop. jërëjëf jërëjëf. taa Faat Bintu royukaay nga ci ñun muurukaay bi tax nga ñu gën a jàpp muuru bi. alhamdulilah. waaw ñu naan ngeen gën a conseiller jeunes yi nag. Mhm. pour ñu gën a tegu ci yoonu diine. parce que li ñu mën a changé loo yoon dafa bëri. Mhm. waaw ngeen ñu conseiller bëgg nañu trop. waaw dëgg naka la maa ngi tudd Sukey Ñaa. waaw kay Sukey li baax na ci.